Léopold Tamba naka lañ ko mën a jàngate euh, ci dëkk bi nga xam ne moo di euh, Mbacké ci région bu Diourbel ca la sorewul dara Touba itam dafa jullootu moo naam dafa jullootu parce que pourquoi euh, bu njëkk ba population bi mooy wàcc di manifeste di def yëfu ne wala nangam nangam di réclamer ay choses ñu koy def par la violence mais aujourd'hui su ñuy réclamer dara ce sont les hommes politiques yi nga xam ne dañoo bëgg a ñoom ñooy instiller la violence dans le dans dans le landerneau politique sénégalais ba pare di ko gëmloo nit ñi parce que ñoom war nañu dépasser fu ñuy di créer ay problèmes yu ni toll war nañu dépasé loolu mais su ñu toogee bay jël xale yi tamit di leen instrumentaliser di leen ne na ngeen fippu ak yooyu li ci mënta jóge yépp ñi koy joxe ñoom ñi ngi bàyyi seen doom seeni kër il faut que xale yi tamit ñoom tamit ak parent d'élèves yi ak parent yi ñu jéem a au moins xool seeni doom ku ci nekk parce que doo mun a bàyyi sa doom yow ngay digal doomu jàmbur nga ne ko wàccal xeexal ma mais loolu du wax joo xam ne ne yu taxaw am na noo xam ne ne dañ ko war a weesu ci mim réew parce que magum jëmm bu taxawee ne man dama bëgg a doon président de la république am na nooy doxalee am na nooy waxee am na noo tamit nooy nooy nooy saafanteek askan wi mais violence bi ñu jël ñu jël jiital ko ba pare teg ko ci kanam ba pare di ci instrumentaliser nos nos enfants loolu moo ci gën a grave parce que ak en réalité pouvoir jarul yenn bakkan yi rot lañ ci war a mën a def ñoom politique yi dañu war a mën a ànd ak dal ba pare ñu xool teg lépp ci yoon ba jour euh, kii bi vote bi bu jotee ñëpp dem vote ñu xool kan moo ci gagné ku ci gagné ñu ne la voilà yaa gagné ah mais nañu bàyyi violence bi mm-hmm. nañu bàyyi violence bi ñu waxaat ci leneen soxal xibaar yi ba léegi Léopold Tamba ginnaaw ba ñu lancé ci fukki fan ak juróom euh, ci weeru novembre lu jëm ci wàllu bracelet électronique lu toll ci juróom-ñetti ci ay euh, nit daal nañ ci bénéficié wu ci boobu lekk dispositif euh, bu ñu sukkandikoo ci directeur des affaires criminelles ak des grâces nit ñooñee nag ñu leen di topp ci ay trace yu nga xam ne ñu koy daal di saytu bokk na ci euh, centre euh, surveillance électronique mel ni kon euh, ñi di détenu yi ne ca maison d'arrêt pour femmes nekk ca Liberté 6 ñoom ñëpp sensibiliser nañu leen ni ki tey ci suba ci takkum port bracelet électronique boobule mu doon nag initiative bu cellule genre ministère de la justice ñu teewlu ci Abdoul Aziz Sow Dabax Germaine Ndior ñañu fa demaloon juróom-ñetti détenu ñoo joote bracelet électronique gannaaw ba ñu ko fi taxawalee. commencé nañ appliquer dispositif bi tribunal Pikine Guédiawaye am na benn benn inculpé maanaam koo xam ni yoon mu ngi koy topp atteguñ ko ku ñu takkal bracelet tribunal Saint-Louis am na juróom-ñaari ñoo xam ni ñu ñu condamné lañ ba pare mu am lu leen dese woon lu ñu war a tëdd ñoo xam ni bàyyi nañ leen takk leen bracelet pour ñu yeggale seen peine seen kër. bracelet électronique yii lee ñu wan ko ñi lee ñu tëj ci kaso bu liberté 6 jaaree ci di leen sensibiliser si njëriñ yu bracelet yi am. ñu nekk ay jigéen ñoo xam ne tey jii bu ñu amee jafe-jafe ci ak justice ñu bëgg ñu takkal leen bracelet bi su fekkee ne réunir nañu conditions yi. jigéen place am nekkul prison. ndax li li wekk suñu mbagg yi moo bëri. bracelet bi lay permettre am nga continuer yi nga xam ne da ko daan def. buñ la ko takkalee ci day tax bu boobaa doo tudd kaso da ngay génn kaso nekk sa kër nekk sa wetu njaboot nekk sa wetu jëkkër di lii ana nu nees def ngir joote ci bokk na ci lu soxal détenu yiile ngir ñu mën a ñoom it joote ci bracelet électronique yiile waaw jërëjëf Léopold Tamba mu doon lu yees naam sunu réew waaye xëy na war naa mën a doon ak solution muy pexe ci bañ nit ñi di yàgg ci kaso bi rawatina soxna yi waaw bracelet électronique euh, xam nga tubaab yee ko ci indi mais c'est une bonne option boo xam ne ne daanaka am na parce que soo xoolee dafay dépeupler li nga xam ne ne mooy euh, kii prison carcérale yi la plupart du temps parce que léeg-léeg dangay gis ñoo xam ne ne ci benn périmètre ñoo xam ne ne ñu bëri dañ leen fay entassé mm. mais suñu demee ba ci biir ñu xam ne ne que ñii mën nañ leen bàyyi ñu dem ak bracelet fu ñu mënta nekk tamit dinañ leen mun a maanaam identifier donc loolu day tax tamit day day gën a yaatu ña cee nekk ci biti ñooñu tamit mën a nekk ci loo xam ne ne ay liggéey la yoo xam ne ne dina leen indil ay mucc parce que tamit jël nit ki tëj ko du def dara lan leen lu du lekk toog nelaw day métti torop mais ba comme femmes yi jox nañ leen ay bracelet dinañ mën a dem liggéey yi am seen liberté ba pare di leen topp loolu déjà c'est déjà très bien day permettre également le surpeuplement carcéral mu wàññeeku lu bëri bëri bëri parce que day métti ñii ko dund ñoom ñoo xam la ñuy daj sax suñu génnee prison léeg-léeg sax dañuy feebar ba nga xam ne ni dañ ciy ñàkk seen bakkan donc pour éviter ça euh, je crois que bracelet électronique yi c'est une bonne option boo xam ne ni baax na ci mim réew. très bien ñu wax ci euh, accident yi ne xuus ci euh, Sénégal rawatina nag Ndakaaru ko tund yi ko wër bi ci mujj nag mooy ñaari Njaga Njaay daal di mbëkkante lu toll kon ci ñeenti nit daal ci faatu ci saa si juróom-ñeent ñu ci am ak blessé grave accident bi nag ni tey ci suba lañ ko daal di nemmeeku ca kilomètre cinquante ca fa euh, dendek Sibikotaan ca euh, Poulen mu mel ni kon euh, foofee itam gis nañu ne woto yi ginnaaw ba nu laalante ba noppi la gis itam ci décombre yi amoon na keneen ka ca mujjee faatu itam muy juróom Pape Sarr mooy président bu gare routière bu Petersen moom nag témoin la ci lu jëm ci boobu rek drame ñu teewlu ko nanga ko bàkkee ko juróom-ñetti waxtu jotee fii ji diggante kilomètre cinquante ak euh, Sébikotane dëkk bi ñu wax Puyéen benn accident bu méttee métti moo fi am ci ñaari kaaru Ndiaga Ndiaye benn bi DK 49 22 L kooku mooy oto bi nga xam ne moo jóge woon Sébikotane yebul woon kenn chauffeur bi rek moo ko yore mais ñëpp ñaar yëpp Ndiaga Ndiaye la bii jóge woon euh, côté Thiès DK 96 93 i horaire Pambal la yeboon na moom ba fees boo rombee cinquante jëm Sébikotane am na dëkk bu ñu naan Puyéen am na bu doublé si ñoom ñaar beneen oto bi mooy ko ñu bëkkante ànd daanu ci suuf sur place juróom-ñeent yoo xam blessé nañ blessé yu goraat mais ñaari moom faatu nañ sur ci la des dem bët saalamuk réew ma ak itam euh, benn woto armée nationale euh, doon dem itam euh, ci bët bu doon dem kon ci nord réew mi jàppale ne itam ca noonu ni ki tey suba ci rn bi route nationale 4 ci li gis ne ci diggante village bu Django ak Jabir ca département bu Bignona foofee la jée ba am bilan ba nag benn nit moo ca faatu itam ak blessé yu takku daan nañ leen évacuer ñoom victime yooyu euh, ca euh, Ziguinchor Léopold accident yi saa yu ñu xëyee ne dina wàññeeku euh, ñu gis ne saa yu ñu xëyee itam gis ne am na yeneen jafe-jafe ñuy dund luy tax accident yi di gën di takkarnaase. waaw am na yeneen jafe-jafe parce que bii mucc bu ñuy wax nii euh, mooy ñaari bus yi nga xam ne ne dañ doon rawante. Mhm. ba finalement am ñu ci ñàkk seen bakkan xam nga loolu lu koy def mooy nit ñi yow boo moom mooy li ma wax rek boo toogee ci volant da ngay jàpp ni que yow ay bakkan nga yëpp. te ci loolu da ngay jéem a def loo xam ne ne loolu la yoon di santaane loolu la code de la route di santaane mais malheureusement du ñu respecter li nga xam ne mooy code de la route te yenn li ci bëri tamit si il faudrait que ñuy mun a euh, policiers di mun a sévir parce que du sévir yoo xam ne ay dóor la wala ay tëj mais très souvent il faut que nit ñi ñu leen di pousser à ce que ñuy respecter le code de la route code de la route nu ñu koy respecter mhm. su dee par exemple ñoom yor ñu seen passeport yor ñu seen kii maanaam seen euh, permis bu leen di permettre permis de conduire ba pare ñu gis leen ñuy doxal loo xam ne ne dafa dafa dafa xàncoo ak li nga xam ne ne loolu la ñu digle mais forcément nga jël seen lii seen permis de conduire parce que tout simplement dañoo respecté wul les règles normales mais su dee si tali ku ci nekk da ngay dem comme nu mu la neexee finalement loolu mooy indi pëccoxoo loolu mooy indi tamit qu'il y ait des morts très souvent parce que depuis combien de temps depuis ça fait plus d'un mois presque on de mort te ciy wax rek mooy bus mais li ci ëpp tamit il foog ñuy xool tamit oto yi ndax am nañu droit circuler parce que am na oto yoo xam ne ne véritablement amatuñu droit di daw ci tali bi parce que tellement que dañoo dem ba ba maxe ba pare ñii ñi di ko dawal ñu koy seetaan loolu nag mooy indi yenn saay li nga xam ne ne mooy accident yu bëri mi ngook ñu wax ci beneen accident Léopold Tamba bi la yoon nag ab lakk-lakk la yu ñu nemmeeku ci garage mécanicien bu ancienne piste ne fii ci Wakam euh, euh, mu mel ni kon lu toll euh, ci téeméeri ci woto dafa lakk